وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا مهين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداي خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب yakunu biha min akrami alxaadimina wa hiya li abdillahi taala sidi muhammad alfaxaama ibnu cheikh sidiya asxaab almaali alwafd almurafiq li fadilatikum wa li zaamatikum kama qaal cheikh daairatu muqaddamat alxidma allajna alulya almukallafa bi idaarati shu'uni masjid aljaami alkabir والمكلفة أيضا بشؤون كثير من شؤون الخلافة العامة مثل تنظيم إدارة المقبرة ومثل تنظيم كثير من الأمور ليلة إحياء ليلة المولد جانب من الاحتفالات في موسم الكبير مقل طوبة وكثير من الأمور هذه الدائرة تحمل اسم دائرة مقدمة الخدمة وهي برئاسة إمام جامع الشيخ عافية بوصو وطاقم متميز الإخوة الذين يساعدونه في المهمة ويحضر منهم الآن ابننا هذا البار السيد عبد القادر بوصو وهذه الدائرة تقوم بنشاط أنشطة كثيرة جدا شيخ عبد القادر تفضل قال الشيخ تفضل ولهذه الدائرة مكانة كبيرة وهي جزء من الخلافة العامة تتلقى أوامر مباشرة من الخليفة العام الشيخ محمود المنتقى wa laha iddata anchita idaafatan ila taxsin ظروف المسجد أولا توعية الناس كيف يعبدون ربهم توعية أهل المساجد كيف كيف يؤذنون على طبقا للمذهب المالكي والإقامة والمواريث وما إلى ذلك وتثقيفهم بإقامة عدة دروس محاضرات خاصة طيلة شهر رمضان الكريم شهر رمضان إن شاء الله نتمنى أن نراكم في رمضان القادم أو بعد أو بعده إن شاء الله كل يوم تقام هنا جلسة علمية بين العصر إلى المغرب بعدة مواضيع مهمة جدا يتولاها مجموعة من العلماء والباحثين ويقومون أيضا بفتوى الاستفتاء ناس يوجهون إليهم عدة أسئلة wa yaqumu al-ulama bi jamci al-as'ila wal ajwibati anha ala ala al-wajhi al-akmal wal ahsan amr bi amrin jamaaciyin wa yaqumuuna bi iftaaraat كبيرة جدا جدا في رمضان يفطر هنا يوميا ما يزيد على ألف شخص إضافة إلى الضيوف والشخصيات والعلماء ويقومون بدور مهم جدا مثل تسوية الصفوف وما إلى ذلك إضافة إلى الصيانة وما إلى ذلك fa lahum minna jazil ash-shukr hadihi ad-da'ira taxmil masuliya kabira jiddan huna fi tuuba ala mustawa at-tariqa al-muridiya wa ala mustawa al-khilaafa al-aamma wa hiya turahibu bika al-aan wa yumathiluhum kama qultu laka ibnuna wa ibnu axina Abdulqaadir Bousso yurahibuuna bikum jiddan fi haadha al-masjid al-mubaarak masjid al-jaami' masjid Tuuba alladi yu'tabar أول وأقدم أول مسجد وأكبر مسجد عفوا هنا على مستوى السنغال وبعض الباحثين يقولون على مستوى غرب إفريقيا يرحبون بكم كما يليق بجنابكم المحترم ويقول لكم مرحبا وأهلا وسهلا وسهلا في بيت الله في بيت هذا البيت من بيوت الله مسجد الجامع لطوبة yatlubuuna minkum kalima incha allahu taala tawjihiya ka aadatikum incha allahu taala li hadihi daaira daairat muqaddamat alxidma wallati tatawalla idarata hada almasjid kama yatlubuuna minkum aydan addua wa shukran kon liñ doon wax rek ñu tënk ko daaira muqaddamatul xidma bi nga xamante ni sunu kilifa sëriñ Aafiya bu so al imam moo ko jiite ak kilifa yu tedd yi nekk ci ginnaawam yëpp Cheikh Abdoul Ahad ñoom te sëñ Abdul bu so mu baax mi teewal leen fi ñoom ñëpp ñoo am mbégte di dalal ganuk Cheikh Mouhamadul Muntaxa gi sunu kilifa gu tedd gi fi ñëw ñu sequn kollëre ak i waajuram sequn ko ak i maamam muy Cheikh Faxaama Cheikh Sidi Mouhamad al Faxaama mi fi ñëw di setub Cheikh Sidiya di ku baax bokk ci kibaar doxaat yi ci àdduna si bokk ci sax si at islamique yi international yi bokk ci ñi nga xamante ni sonn nañ lool ngir tasaare lislaam ci image bu rafet ci àdduna si yëpp di ku baax yilif daara yu mag a mag yoo xam ne ay junni junni te ci jànge ca moo leen yore yilif njaboot gu kawe kawe it foofa ca Mauritanie ñun ñu xam ci dara lu bare bari dëkkam boobu tey nga xam ne moom la ñuy wax albaladul amin boo fa demee da nga fa fekk mbooloo mu bare bare bari muy jàng man dem naa fa da nga fekk lu mat junni nit ñuy jàng alxuraan. te lépp gratuit la ngir yàlla rek la ma jaanan da nga fa fekk ñuy sàkku xam-xam ni nga koy gisee it fu bare bari ci jàkkaam yi ak jumaam mi nga xam ne am na moo ñëwoon tey seet si woon sëriñ bi tey nag ku ne xam na ne ku ñëw Touba nag faw nga ñëw ci xolub Touba mooy jumaa ji moo taxoon mu ñëw tey saafanteeg daaira Muxaddamatul Xidma leeral nañ ko seen yitte yëpp yi ñu baaxoo ab xaaj la nee naa ko rek bu bokk ci xilaafa gi xilaafa la am ma sëñ bi moo leen d joxe ndigal ni mu yilife dëkk bi ni leen yilife dénku leen jumaa ji kese waaye lu bare bari ci yëngutu yi mënta ñàkk ca laal ci diine nee ko seen loxo ngi ci gàmmu gi màggalu tuubaa gi bërëb bu tedd bi nga xam ne ñëpp fa la ñu mujj muy béréb yi armeel yi ak yu bare bari yoo xamante ni rek jullit yi ci dëkk bi Touba ñoo ko bokk seen loxo ngi ci ñu ci taxaw taxawaay yu rafet nekki noonu ba tey seen yitte it yemut ci jubbanti ay sàppe ak setal jumaa ji rek ak ak ak entretien bi waaye lépp solo ci jullit mënu koo ñàkk ñoom ñu ngi ciy taxaw jàngal nit ñi ni ñu yore juma mu yeneen juma yi ci des ni ñi nodde fekke naa ko fii nit ñi liqaame masalan kuy julli nan ngay jullee julli bu baax loolu lépp ñu ngi ciy jóg ci loo xamante ni mi ngi jëm ci juma yëpp ko ci sax juma yi nga xam ne ñoo gën a kawe jëlale naa nag li ci des yenn détails yi jubanti sàppe ak ku ne juma niñ koy seetalee ak koy nangame kon seen te kawe na lool nit ki noonu ba tey it liñ ko leeral rek mooy taxawaay yu rafet yi ñuy def toujours waaye nag surtout ci koor gi kon ne xam na ne semaine bu jot am na jàngale leçon yu ñu joxe bisub ajjuma yoo xam ne bayaan bu am solo fii lañ koy defee bala ñu julli waaye koor gi bis bu set borom xam-xam yi gën a ràññeeku ci dëkk bi danañ fi teew bis bu yàlla sàkk xool thème yi gën a am solo it ñu koy jàllale di laaj ni ñi ci diine ñu wax liñ soxlaa xam ñoom ñu koy tont tontu yu am solo nee naa leen lépp it jëfeenu mbooloo lañ koy defee nga xamante ni tontu lu jóge ci ñoom daanaka mënees na koo signé ndax lu wér a wér lay doon loo ni dana dëppoog li nga xam ne moom la mooy suñu mazhab dëppoog alxuraan dëppoog sunna ak nag mbooloo junni junni nit yi nga xam ne ñoo fi doge toujours kon seen liggéey rafet na lool comme niñ ko ko leerale ne ko daayira boobu nag la ñooy sàkku nga jël kaddu kaddu gi ne li ci jiitu ñaanal leen li ñu leen dénk ca muy responsabilité bu mag yàlla taxawu leen ci bu baax a baax bokk na ci it nag euh, nga xam leen bu baax a baax a baax xam ne kenn lañu rek ci njaboot gi ndax diini rek la liggéeyal ko liggéeyal it fi nga xam ne moo gën a màgg fépp muy néeg yàlla bi ñooy sàkku ci moom kàddu googu ko bisimilah. من ضمن زيارة بها لمعالم طوبى اليوم المدينة المباركة هي إدارة المسجد وهذه الإدارة أطلعني الأخ المرتضى بوصو على نتائجها ونظرت بعيني ما قدرت أن ألاحظ في وقت ضيق وهي إدارة مهمة فجزا الله القائمين عليها خيرا وجزا الله الشيخ الخليفة العام على هذه الإنجازات وأوصيكم بتحمل المسؤولية في كل وقت فإنكم في مشروع وأهم المشاريع بيت الله عز وجل والقراءة فيه والدروس الرمضانية وما شابه ذلك من مشاعر دينية ونحمد الله عز وجل نحن على آثار ما ترك لنا هذا السلف الصالح ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك هذه الإدارة مهمة ومشروعها مهم وهي اسمها كموسومها فهي تحمل دائرة مقدمة الخدمة وهي في أصل الحقيقة هي المقدمة في الخدمة والمقدمة المقدمة بمعنى أنها الأمامية وهي المقدمة في الخدمة لأنها هي أهمها أعانكم الله على ذلك وجزاكم كلكم خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملاس الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فلئ وهو الذي خجيت من زيارتي أكل لساني له كالخلب سواره السلام على أشرف المرسلين أنا محمد محمود اللواه من تلاميذ الشيخ المرافق من مريده ومحبه ومحبه القيصدية كلهم نوه بهذا الاستقبال اللي عدى للشيخ الفخامة اللي عدى له الخليفة العام الشيخ محمد المتقى وسفيره بوصو مرتضى سيد القاضي وهذه المكتبة اللي شاهدنا اليوم إياها عمل جليل من أعمال الخير وراجم عند الله تبارك وتعالى على انه يقبل العمل فيها وجينا وكانت اياها للمسجد للمسجد وادارته واطلعونا مقدمي الخدمه على هذه الاعمال اللي هنا اياها من من اعمال الخير كاملها من كنس المساجد ومن الاقامه على الاذان والاقامه ومن إقامة على نظافة المسجد وعلى أفرشته وعلى الدروس الرمضانية والمحاضرات وإفطار الصائم فيه وأعمال الخير كلها فتبارك الله كلها جيدة ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبلها ودور الله يتقبلها إن شاء الله تعالى باللي من علامة قبول عملهم استضافتهم لهذا الشيخ الفخامة آه الله تبارك وتعالى منين يعود اللي قابل عمل آه هي أسباب القبول ومنها إن شاء الله تعالى زيارة لكم هذا الشيخ ما قضي شل البلاد الحمد لله ما زارت ومحط البركات لكنه هو جامع الشيخ والحمد لله وإذا كامل ستشاهدونه إن شاء الله تعالى ستشاهدون نتائج هذه الزيارة من الله تبارك وتعالى ومن الفتوحات ومن كل شيء ومن الخيرات ومن المسرات إن شاء الله تعالى أيدكم الله بنصره وجمع بينكم بين أسرتي الشيخ الخديم والشيخ سدية في خير وعافية وأدام ذلك العز وأدام ذلك التواصل وتلك الجسور التي تربط الأسرتين وتربط البلدين موريتانيا والسنغال راجين لله تبارك وتعالى شيخنا يرجو لكم النجاح والتوفيق وراجيه للخليفة العام وطول العمر والسعادة وعن مشروعكم أنه يستمر إن شاء الله تعالى دائما تم كل يوم تجددونه به اللي هذا اللي واحدين فيه أفكار الشيخ الخديم هي اللي أنتم كانكم تنفذوها وأذيك ما إليته فضلك إياها بهل لله تعالى وستدوم بدوام الأبدي إن شاء الله تعالى ألا اشتمروا وشمروا عن سواعدكم وواصلوا وإن شاء الله تعالى علاقتكم مع الشيخ لا من أعمال الشيخ الخديم ومن بره ومما كان ينوي واصلونا واصلونا على الدرب نرجو لكم النجاح ونجاحكم إن شاء الله تعالى ما دمتم تتصلن بآل الشيخ سدية والشيخ الفخامة ستكون أعمالكم مكللة بالنجاح ومقبولة عند الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على محمد وسلم اللهم اللهم أصلح حال أهل دائرة المسجد وتولهم وسخر لهم القيام بوظيفتهم اللهم أصلح هذا البلد وغيره من بلادنا اللهم أصلح موريتانيا والسنغال اللهم أصلح بلدتينا أباتي لميت وطوبى اللهم تولى أهلهما اللهم أصلح ذات بين أهلهم وتولهم واجمعهم كلمتهم على ما يرضيك اللهم أصلح هذا الجمع وغيره من جموعنا اللهم أصلح المسلمين في كل مكان اللهم أمدهم بعونك اللهم سخي للأعمال الخيرية في كل مكان أن تدوم وتقام على حالها وسخ للأعمال الصالحة في طوبى أن تقوم وتدوم على حالها اللهم بارك في خليفتهم وبارك في مريديه وبارك في جميعهم للقلب دول لدى إن لو نصرت لكن إذا أولوا لم تنبت أشجار يكون للبير ماء تاب مشربه لكنه من خليد البار أقداره الماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار الندى بالماء أمتار ذاك